kon ñàkk leen a respecté mooy waral nga génn di menacer ak defar say bagage te dara xewagul dem sa yoon te naan nañ ma déglu fii ki fan danaa def politique. dañuy ra rafetluwuñu comportement Aminata Touré ñun ñoo bokkoon di campagne il faut que ça soit très clair respectons nos institutions. lii bu fekkente ni dafa bëgg a di am boo moytul dinañ fi mus a jëlee ab ministre mu ne duma def passation de service te ministre ba fonctionnement ak léppam c'est l'état Sénégal. kon nañu respecté réew mi te xam ni benn bopp kenn mënu koo xar ñaar chaise ka ca toog waxtu wam cay jóge suñ borom mag ko jox moo ko xam kon nañu moytu ay caaxaan te ku ci perte dem ba nekk en perte de vitesse bëgg tàllal loxo xale yi naan gone yi gone yi dégguñu la ba nëga nga taxaw naan gone yi ak toog ci plateau tele yi bëgg a jëlal waa Touba par muy Moustapha Diakhaté te fii nga taxaw biñ ne parité du am Touba les médias wax ne Touba dëkk la comme dëkk yépp kon parité dafay dox tey bu bëggee wëlbatiku jëlal paar waa Touba ñun dañu koy dàq na seeti fu mu te bàyyi Touba waa Touba mënal nañ seen bopp jàpp naa ne non 67 pour cent contribué na ci premier tour Macky Sall moom nañu wax basam lan la fa gagné Mimi Touré wër di wax dem na Grand Yoff Khalifa daaneel ko mu dem Kaolack Mariama Sarr ni ko du mu bëgg a taxaw utiliser maanaam comportement boppam naan gone yi na bàyyi gone yi gone yi màgg nañ mënal lañ seen bopp xam nañ ku leen amal njariñ ñu ngi gën a ancré ci Benno Bokk Yaakaar bi derrière le président Macky Sall.